Euh, ci ni ma ko laajee ñëpp rek la la la koy laajee. Mm-hmm. mais nga baal ma rek bala ma ciy ñëw comme ni ma waxee euh, répartition yi ci temps d'antenne bi moo nekk nii kon ñu fas yéene koo tàmbali dimanche euh, ki nga xam ni mooy njëkk a jàll mooy sa sa leader sa Seck. ci premier tranche bi mooy njëkk jàll Amadou Ba moo ciy tegu Habib Sy tegu ci Thierno Alassane Sall moom daal di ciy tegu El Hadj Malick Gakou dikk Daouda Ndiaye professeur moom itam ñëw moom Mamadou lamin jàlloo moo koy moo ciy topp El Hadj Mamadou Diawo daal di ñëw. ante Babacar Ngom daal di dikk Serigne Mboup moo ci dikk loolu nag mooy ci tranche bu njëkk bi kon ñu jàpp ni dimanche euh, la koy dool di door euh, ci tranche ñaareelu tranche bi Aly Ngouille Ndiaye moo koy ubbi Bassirou Diomaye Diakhar Faye sa sa candidat moom moo ciy topp euh, Cheikh Tidiane Dieye daal di ñëw Déthié Fall daal di ciy topp Aliou Mamadou Dia daal di daal di topp ci ki nga xam ne mooy Déthié Fall Aliou Euh, Pape Djibril Fall daal di ciy topp Khalifa Ababacar euh, Khalifa Ababacar Sall moom mooy dikk gannaaw euh, Pape Djibril Fall Mohamed Boun Abdallah Dionne daal di dikk Boubacar Camara daal di ciy topp loolu mooy ci deuxième tranche bi ci li nga xam ni mooy diffusion temps d'antenne bi ngay xam ni RTS dañ koy diffuser ci seen ci RTS ak ci li nga xam ni mooy rajo bi kon dinañu ñëw ci peut-être ci yeneen tranche yi. Euh, gannaaw le 11 am na nen nu mu demee le 12 naka noonu le 13 loolu mooy calendrier bi nga xam ni jot nañu ko alors Fadel fi ñu tolloon. Mhm. Euh, tey mhm. ci forme bi yow noo ko gisee li nga xam ni moo xew. ba ñu egg si tey ci ci ñaar fukki fan ak ñeent ci. décembre euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci ci mois de mars. mois de mars bi d'abord nga permettre ma à la suite de monsieur Kane. ma jaale ko di jaale ko aussi waa réew mii mais aussi di jaale eh, waa Touba ak waa Medina waa kër Oustaz Barham Diop bi suma benn mag bi gaañu barki démb maa ngi woon Nairobi ñu woo ma ko di Sayer Fall di ko xam ne eh, dundam yëpp jàngale la woon ci ak oyof parce que Baye Fall bu mun a dëkk ak magum Tidiane Oustaz Barham Diop ñu mu ànd bu rafet am na lu ñu woon ci seen pas-pas yal na ko xale yi mën a gis ba mun ci jàng. Mm-hmm. Eh, ginnaaw loolu situation bi papp Ngagne d'abord dama bëgg nga permettre ma ma ma def quelque humanité maanaam euh, euh, ci début wax bi euh, ma def ci quelque humanité lu ma si undu mooy dama gis ci réew mi lépp loo xam ne taal na beneen réew Sénégal résisté ça veut dire que Sénégal bu tàkkut ci ñan at yu ñu génn nii dama gëm ne lenn rek a ko mën mooy ñaan dëkk bii ku ko ci am looy layam laa ma ñëwal xool Euh, keroog bi Macky Sall décidé décret boobu abrogé pousse élection yi euh, annulé euh, convocation au corps électoral bi tubaab yëpp daw ñëpp ñëw Sénégal ne Sénégal dina takk dama ci xam dara parce que bu presse internationale bi ñoo dañu bëri ñu may contact man leen non yéen a ngi ñëw di xool dëkk yéen a ngi ut si fitna ak ay waaye du ngeen ko gis parce que sénégale yi dañuy def beneen option beneen choix mooy choix wu jàmm. donc ma permettre ma ma féliciter ci sénégalais yi. li nga xam ne luy xëccoo bi di métti métti ñu ngi ci ànd ak dal ku jiitu ci ñoom nag mooy les nit ñu mag ñi téye suñu institution yi ba rëccal ko ñu ci jiitu mooy waa conseil constitutionnel. parce que it ci début tàmbali problème bi ñoom lañu accusé de corruption nit ñi dañ koy fàtte. fàttewuñ ko kay. loolu mi ngi fii mais dafa mel ni tey ci débat bi loolu. dafa mel ni li ci liy feeñ boobu ba léegi sax day wane ni fàttewuñ ko. voilà ça veut dire ñoom la ñu accusé de corruption. mais pourtant ñu wan ci dal boo xam ni di sauver l' essentiel mu nekk Sénégal euh, beneen bi ci topp mooy ne fi réew mi jaar nii aussi ak débat parce que dama jàpp ne euh, suñu woy politique yi suñu classe politique bi ñoom ñoo créé benn tension ci au niveau des institutions ñoomi neen ak parti politique yi. te fekk ni sénégalais ñoom seen xol nekkutoon ci loolu ñu ngi bëggoon leneen nga gis ne ci loolu tension yooyu malheureusement toujours am na ñett nit ñu ci dee ci tension bu mujj bi ñett nit dee nañ ci mais teewul suñu force de l'ordre bi beneen pilier wu beneen pilier boo xam ne ils ont tenu la sécurité boo waxee pilier wu justice bi dinga wax pilier wu ju pilier wu. sécurité bi ak tout ce qui concerne muy force gendarmerie muy force police muy force sapeur pompier ba aussi armée bi nekkoon di xool parce que léeg-léeg mu compliqué ba ñu xaw a génn tuuti duggaat ma ngi leen doon xool ñoom ñëpp ils ont tenu choix boobu noonu nag li ci gën a rafet mooy ne sénégalais yi seen bopp en définitive ñoom ñu toog ne xeex leen waaye ñun dugguñ ci moo tax réew mi ba ñu mun a toll fii loolu moo dëgëral aussi conseil constitutionnel. bañ mun a taxaw ne ak quoi qu'il en soit élection yi dañ ko tenir à date. lan la lan lan laa ci mun a wax comme leçon bu gàtt mooy ne en fait euh, kii kan wax na ko léegi du au-delà tout ça pour ça mais foyer bii ba kañ foyer bii ba kañ est-ce fi àdduna toll. adduna mi ngi toll foo xam ne xolal dëkk yi ñu wër waxuma la fitna yi am ci biir CEDEAO mais xoolal tremblement de terre yi xoolal guerre yi xoolal ñu génn ci Covid xoolal fu àddina bi nu mu tollee ci incertitude nga xool jeunesse africain bi particulièrement jeunesse Sahel bi nga jël jeunesse sénégalaise bi ni ñuy nekkee di daw dëkk bi mel ni xalu safara ñaata ñoo nekk ci gaal yi ñaata ñoo yegg États-Unis xamuñ fu ñu jëm nekk ci sedd ñu ne ci jamono jooju àdduna di jafe Sénégal ñoom am nañ ak mbaax yu fi feeñ muy gaz ak pétrole mu nekk le seul moment où les Sénégalais waroon a jël coowal politique ñu topp ko topp ko ba fàtte l'essentiel mooy comment naka la ñuy fexe ba suñu réew lii di fi dee lii di fi gone di béy baabu di dundee lii di xale mën a nekk ci mbedd mi jafe-jafe yu nekk comment on mais débat bu serein sax mënuñu ko am on nous contraint à une élection à combien de jours même pas xaw ma sax ñaata fan la ci biir weeru koor stop and go toog leen yëngatu leen sa à dire que entretenir bu ñu entretenir pseudo flou bi am te ñoom politiciens yi kese la parce que sénégalais suñu biir amuñu problème dégg naa dem Aïssata Tall Sall après la division mais ban division ban division murit amu fi problème ak tijaan bambara amu fi problème ak laayeen séeréer amuñu problème ci suñu construction sociale lu réew fondement bi ko téye suñu désir de vivre en commun bi amul dara lu ko laal à part coowal politiciens yi seen biir ak coowal politique bi ci biir bu ñuy jël parfois di ci maas nun gi ne waaye waa sud yi ah non non joolaay dem nañ ba xew a di firnde yooyu les sénégalais dal mais tey jii encore une fois de plus ñu ngi dem après lii yëpp tout ça kenn mënut a comprendre en premier lieu en premier lieu le président Macky Sall xaw ma man j'ai besoin dama soxla mu toog wax ñu lu xew qu'est-ce qui se passe lan la naka lañ yegsee ci situation bi ba 2024 après deux alternances parce que aussi ay nit a fi nekkoon di xeex boobu ba léegi 2000 2012 changement yooyu gars yi askan bi dëgg-dëgg coppite gi mu bugg ba ñu taxawee tax ne il faut que système bi ci boppam la ñuy changer définitivement mais au bout du compte xoolal fi si en 2024 at bi nga xam ne moo waroon nekk sénégalais effort yu ñu def 2000 effort yu ñu def 2012 war nañ yegg si ci élection yoo xam ne 2024 programme kese la ñuy wax programme kese mais on en arrive à une situation où aujourd'hui on est là kenn xamut lii lan la. d'accord et finalement. c'est le système ki gagne. jërëjëf Fadel. merci beaucoup Fadel euh, ñu joxe xibaar bi aussi mooy président de la république décret bi génn na euh, jombul xëy na gisoon ngeen ko wala bu fekkee gisu leen ko aussi ñu wax leen ko mooy décret bi nga xam ni moom mooy dëgëral li nga xam ni waxoon na ko ci euh, conseil des ministres que ni élection yi jàpp na ko le 24. Mm-hmm. kon ci wàllu yoon fi mu nekk nii loolu moom daal dinay féete boor. décret bi xam naa ni liir ko dina xaw a jël temps mais l'essentiel mooy ñu wax ko ñu xam ko euh, kon euh, nañu jàpp ni léegi wér na wóor na ni élection yi moom ñaar fukki fan ak ñeent ci de euh, ci ci mars incha allah dañ ciy daal di dem ak jàmm ñu dalal Abdou Khafor Touré bokk ci benn Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu directeur. maa ngi lay bu baax sëñ Papa Ngagne di am mbégte <clears throat> teew fii. Euh, di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice yu TFM yëpp di nuyu aussi euh, ñu ma fekk ci plateau bi yëpp koo commencé par le professeur euh, Mary ñaan Niane suma mhm. mag di nuyu Fadel di nuyu monsieur ah, di am mbégte bokk ak ñoom plateau bi di ñaan rek waxtaan bi amal solo askan bi ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi jël seen temps di ñu di seetaan wala di ñu déggu d' accord alors Khafor ni ñu ma ko laajee rek mooy euh, bala ñuy dugg ci biir waxtaan bi bu baax euh, date bi jàpp nañ ko décret bi génn na mais am na lu fi jaar lool di am li fi jaar yooyu yëpp nag dégg naa ma daana kan ni tout ça pour est ce que jaroon na ko pour yow Khafor. je pense que euh, est ce que jaroon na ko en tout li fi jaar bari na jàpp naa ni réew mi fi mu toll fi mu toll nii. dafa laaj euh, dafa laaj dal dafa laaj sérénité dafa laaj parti yëpp ñu ko séq ku ci nekk nga xool intérêt réew mi parce que réew mi moo ñu dépassé ñun ñëpp euh, bu ñu ko defee rek danañ jëm danañ def ay jéego kanam ndax jaroon na ko euh, ñëw nañ léegi je pense sur les péripéties yu ñu dund mais lu sooke wax ci fu mu jóge jàpp naa ni Sénégal démocratie bu bu dëgër la bu wóor la mooy suñu fierté te jàpp naa ni tey képp ku nekk sénégalais ak atitude bi nga xam ne nii président de la république am na ko démp war nga am fierté parce que président taxaw na taxawaayu républicain taxawaayu démocrate kap taxawaayu garant de l'état de droit euh, en tant que clé de voûte des des institutions taxaw na taxawaay boo xam ne nii dëgëral institutions yi fi am yëpp waaye lan moo indi mbir mi fi nekk yëpp je pense que taxawaay boobu président de la république taxaw taxawaayu président de la république moo tax bi coow tàmbalee ci benn institution parce que li ñuy wax yëpp ñu ngi jiiñ Macky Sall lu bari mais coow li li ko sooke parti position la suñu waxantee dëgg lan moo indi coow li benn parti d'opposition en l'occurrence parti démocratique sénégalais le conseil constitutionnel génnee liste fukki candidat ak juróom-ñeent seen candidat bokkul ci ñaar fukki yi ñu def ñaari initiative parlementaire loolu moo indi coow li président de la république bi ñu nee suba la campagne bi di demare mu ne jot naa leetre bu jógee assemblée nationale am na procédure bu fa nekk donte procédure bi moo ngi fa jël naa décret pour abroger li nga xam ne nii moom moo doon convocation du corps électoral je pense que dans le discours du président du 3 février nulle part waxuñu fa report nulle part abrogation du décret portant euh, convocation du corps électoral. égal non non non ce n'est on est on est égal égal non non non on n'est pas encore dans le report. on n'est pas encore dans c'est que il faut ñu précis ñu fact parce que gis nga Papa Ngagne réew mi fi mu toll suñu werantee rek xam nga lu réew mi rafle muy dëgg. Mhm. ci li ngay wax sànq c'est-à-dire par parloo bu bari wax ji par parloo ku nekk da ngay wax sa intérêt fi nga far dafa am réew foo xam ne nii fu mu toll surtout fi ñu toll nii pour ñu dépasser ko ñu am jéego il faut ñu wàññi par parloo bi ñu wax dëgg dans les faits sama fii laa far rek lii ku ci nekk. am nga fi réew mi toll du yomb de parce que ku nekk dafa am dëggam quoi. waaw mais ku nekk <laughs> waaw mais mais mais mais dëgg dafa am. Ah, ah. xam nga dans le champ partisan. ci politique du ci yomb de loolu mooy champ partisan. Mhm. dans le partisan ku nekk mun nga am sa vérité loolu c'est partisan mais li nga xam ne nii. lépp la globalité ñoo ko bokk am na ñoo xam ne nii mën nañu am neutralité wala ñoo xam ne nii ñoom ñoo yor rôle bi nga xam ne nii ñoom ñooy wax lii mooy yoon bi comme conseil constitutionnel ni ñu ko defee tey. parce que rôle am joué na ko nga d'accord d'accord loo ñëpp dañ ci tënku. mais donc loolu bi mu amee président de la république il faut ñu nangul ko rôle mu taxaw mu ne je prends acte abrogé report amagul de parce que wax ji le report. en réalité c'est le conseil constitutionnel qui a reporté l'élection dans sa décision qui a dit matériellement qui a dit que la loi portant report bi assemblée nationale votée c'est constitutionnel illégal le décret du président est illégal mais matériellement il est impossible de tenir l'élection le 25 février loolu mu ngi ci décision bi kooku rek moom moom moo mën a jël décision boobu waaw bi mu waxee loolu élection mënul am 25 février am dir loo xam ne nii wax na président mu def ko mais ku nekk ak sa rôle <clears throat> président de la république dafa am rôle am mu ne moom ci rôle am ci rôle am conseil nee na ko sa mandat le 2 lay jeex d'accord na le 2 dafay dem parce que nit munoo ko juger lu dul ci jëfam d'accord naa damay dem le 2 mu ne ko élection bi il faut mu am dans les meilleurs délais mais président de la république mu ne kon naka la ñuy def ba waxtaanee loolu ba d'accord ci ñu loolu yomb na ñëpp waxtaan ci rapidement ñu d'accord ci loolu rôlam la mu xool naka la li ko conseil bi sant naka la koy organiser ba def ko woote na dialogue ñii bëgg ñëw ñëw nañ ñi nga xam ne nii ñoom jàpp nañ ni waruñu fa teew teewuñu fa te jàpp naa ne dañu am tort waaw ba mu paree loolu ba léegi dafa jël jébbalaat conseil constitutionnel conseil constitutionnel li nga ma jébbal nii yëpp dara ànduma ci ci dara parce que maa ngi des ci li nga xam ne nii moom laa tracé woon ni mandat bi le 2 avril élection yi conseil sax dépassé na mais je pense que suñu bëggee rester ci principe yi outrepassé na euh, ay prérogatives parce que convocation décret fixé élection mhm. duurala élection bi il faut mu am ci biir mois de mars bi ba jàpp date mais président de la république conforme noo intégralement ci loolu muy démb mu convoqué élection yi bu convoqué le corps électoral pour euh, le, le le 24 mars mm -hmm. je pense que loolu mooy situation bi fi am maintenant waroon nañ nekk ci situation bi waruñu si woon nekk jàpp naa ni président de la république def na li mu waroon def wàccoo na ak institution yi en tout cas c'est un homme d'état achevé et je pense que procès d'intention yi ñu koy defal yépp acte yi muy posé parce que mënoo ko juger ci situation bi acte yi mu posé de respect parce que li assemblée def am nañ droit def ko li conseil constitutionnel mu jagleel ko mu ngi koy def moom mu ngi koy dogal donc à partir de ce moment je pense que amul problème maintenant est-ce que waroon nañ yegg si fii lii yëpp je pense que conséquences yi gis nga Papa Ngagne suñu buggee dépasser lii Sénégal jëm kanam il faut que ñu xoolante ñun ñëpp ñu wax dëgg ce qu'on vit c'est vrai c'est les conséquences Fadal wax na ko léegi il y a une crise politique artificielle qui a été créée dans ce pays mais président de la République dafa am chef de parti la euh, dafa jiite kuréel mais loolu c'est la politique mais on confond toujours le président de la République avec le chef de parti le président de la République Sénégal yëpp la yëpp c'est le garant de l'intérêt général et je pense que gis nga bu atti acteur yëpp responsable ku ci nekk mat li nga doon mat li nga doon Euh, lii xew ci réew mi d'accord na problème yu bari homme politique yi ñoo ko indi mais c'est responsabilité dans le discours parce que les Sénégalais en vérité li leen intéressé boo jógee Sénégal le Sénégal boo koy compter sur le secteur formel on a à peu près un million maximum cinq cent d'actifs les quatre millions et cinq sont dans le secteur informel waaw mais six million d'actifs yooyu su ñu yeewoo suba ba ngoon xam nga lan la ñuy toppatoo lu ñu fayalee seen jàng doom lu ñu joxe seen dépense mhm. nekkuñu ci yenn coow yi mais président la république aussi bu xëyee suba ba ngoon sur 16 heures 18 heures professeur Mary Teuw liggéey na ak président Macky Sall xam na ni kooku ci lan mooy defal progrès réew mi la nekk mais mënoo nekk ci benn débat ñi nekk ci mbedd mi chaque jour nga leen di tontu mais je pense que suñu arrivé à ce que on ait un débat constructif un débat sur les principes C'est-à-dire qu'un débat parce qu'aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel m'arrange parce que le Conseil constitutionnel mu ngi def liggéey demain la décision ne m'arrange pas aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel mën nañ ci wax lu bari parce que du duñ ci xóot nga d'accord peut-être am na point yu ñu d'accord mais duñ ci xóot parce que xam nga waxtaan ci dina baax xóot ci aussi am na solo non xam nga lu tax am nga ci ay argument c'est important aussi na bari na ah, c'est loo ci junj tout à l'heure waaw na euh, xam nga démb am na loo ci junj xam nga démb mhm. conseil nee na fixé woon na date ah, 31 mars waaw amu ci yoon amu ci droit euh, président de la république bi mu fixé date 24 mars démb conseil defaat na communiqué tey ne d'accord na ci ci date boobu président ça veut dire que du moom moo waroon euh, fixer date d'ailleurs justifier na position li tax mu jëloon euh, euh, date boobu mhm. tey conseil bu nee d'accord na ci date bi président fixe le 24 dafay violer la loi électorale alors parce que mais tey mooy 21 jours de campagne moo ne 21 jours de campagne. ok d' accord tey ñu ngi dem ci élection boo xam ne nii. Mhm. c' est vrai dañu war a dem élection. parce que soo bi ñu naroon am le 22. parce que le le conseil a été dogmatique. je pense que situation bi ñu toll. Mhm. conseil rek moo mënoon mhm. sauver Sénégal. jouer sur son rôle de régulation. du jeu électoral. d' accord je pense que conseil jël na fi ay décisions élection législative. ñenn ñi dañ ne woon euh, pouvoir bi moo nekk ci gannaaw fii validé nañ fii ay list suppléants yu dem élection législative d'accord parce que booba conseil bi dafa interprété dafa def rôle de régulation mhm. mais la mu def ci yoon je pense que amul ci benn texte bu ñu ko établir mais loolu je pense que situation réew mi fi mu tolloon pour ñu mun a dem élection si jàmm parce que président dafa ne mon souci permanent c'est quoi damay dem bëgg naa fi bàyyi stabilité bëgg naa fi bàyyi jàmm bëgg naa élection libre transparente et inclusive bokkuma ci merci beaucoup mais bu fekkoon di acteur yi nangu nañ toog waxtaan d'accord on aurait eu des conditions des conditions d'élection normal mais tey dañuy dem ci xam ne loolu après de la doon non non mais d'accord d'accord Khafor léegi merci mais mais mais s'il vous plaît waaw waaw d'accord nga terminer foofu s'il vous plaît Khafor Pape li ñuy projeté wu waaw avenir réew mi la d'accord il ne faut pas que ñu dem ci condition yoo xam ne nii. le prochain pro le prochain président. d'accord aura des okay. difficultés. pour merci. gouverner le pays merci beaucoup. et ça c'est important. Khafor s'il vous plaît vraiment merci beaucoup jërëjëf professeur Mary